برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu Medina Baye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

دمن ما كو واخ واي باي ما واخ مون كو سي اي اي اي بيت يو خني آه، داف لي ني داف لي بون دوغين دينغين ام لوغين فوغو تو ني مون كو ام تي بي سي لا بوك فو بي جينتي كون آه، غيس نك تب نك فين سي ادنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه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 di am jàmm di akolataté ci say say mbokk te kenn du tit di tok di jege te kenn du tit di joxe loxo te kenn du tit te lolu yëpp ñu ko yaakar ci barké juddu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné yàlla daf ko yoni pour mu nek yërmande yàlla daf ko yoni pour mu nek docteur bi nga xamné moy mooy faj feebari xol yi ak feebari xel yi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh برهام باء وراء الف ثم ha